xaar Momar nga wax ñu ah, taxawaayu Ascosen ci jafe-jafe yi. taxawaayu Ascosen ci jafe-jafe yi taxawaayu Ascosen ci jafe yi loolu su ma ko journaliste di laaj daf may reetaan parce que dama lay jox benn exemple prenons du ma jël sax ville damay jël village yi gën a sori am na village yoo xam ne tey su ma la waxoon sax doo ko xam dañuy wan ne ñun c'est pas normal ñun ñu ngi am réseau dëkk bi dend ak ñun mhm. te ñun Sénégal lañ nekk mënuñoo am réseau Sénégal ñu leen koy lijjanti am na dëkk yoo xam ne dañuy oo ne ñu ñun ñu ngi ñu branché ci électrification rural électrification rural bi li ñuy fay dafa seer te ñi nekk à deux kilomètres ñu branché leen ci li nga xam ne mooy électrification Sénélec il paye beaucoup moins cher c'est pas normal li nañ loolu ba léegi il paye la même chose léegi li des mooy que comptage bi nekk la même de la de la même manière ndax actuellement ñoom comptage yi ñu am comptage forfaitaire la donc su dee lijjanti ay problème on la Sonatel trois fois benn bi trois milliards beneen bi quatorze milliards beneen bi seize milliards pour lan le non respect des droits du naa on a fait condamner Senelec quatre milliards huit cent trente neuf millions pour lan non délivrance euh, continue du courant et cetera et cetera. kon de Woyofal bu yeboo ngeen jublu ci. parce que di ngeen ko condamné waat su ma doon lim su ma doon lim li nga xamante ne bi moom lañ def émission bi day jeex te duñ pare donc loolu moom sax wax ju yàqu la man dootuma tontu sax. ci question yooyu léegi li am solo mooy. ñun li ñuy def mënoon nañ toog suñ kër croiser les di seetaan comme ñëpp mais ñu ngi jóg di sonn gëm li ñuy def buñ demee ba nga xam ne man dugg naa ci loo xam ni ñàkk naa ci sama liggéey pour lan pour respecter ma parole c'est très important combien de Sénégalais sont prêts à faire ma nekk directeur du réseau benn société d'assurance boo xam ne moo fi nekk ñu jël Sénélec mu bugg a yokk prix yi en changeant le système de facturation maanaam ne léegi dootuma relever tous les deux mois damay relever tous les quatre mois ñu ne ko yoon mayu la ko ñu wax ko mu bañ ñu porter ko plainte mu reculer te boobu man nekkuma sax président secrétaire général la ñuy organiser assemblée générale des actionnaires directeur Sénélec ñëw parce que ci actionnaire yu mag yi société boobu la bokk ndax société mutuelle la mu gis ma foofu parce que ñu bari xamuñ mu ne PDG bi mais ndaw lu muy def fii kii mu ne ko kii c'est mon directeur du réseau moo organisé lii yëpp mu ne ko mais ils ont porté plainte contre nous waa ji ne ko ah mu ne ko waaw ca suba ko mu convoqué man ne ma Sénélec lu ngeen jotee ma ne ko dara mu ne ma non nee na da nga leen porté ma ne ko ah oui ça c'est dans le cadre du de ASCOSEN. xaaral ma expliquer mu leer parce que. il faut ñu comprendre soit mu def la histoire vraie. mais terewul ñun dañuy wax de. non waxuma bu leen wax léegi. mu ne ma nu mu demee ma ne ko dañoo def loo xam ne jaarul ñu ne leen bàyyi leen ko ñu bañ ñu porte leen plainte ñu dellu ginnaaw mu ne ma bàyyil Senelec tranquille parce que munoo nekk sama premier commercial di attaqué mon plus gros client ma ne ko ah, wax nga dëgg de mu ne da nga koy bàyyi tranquille ma ne ko déedéet joxe sama kaddu moo tax kaddu lu am solo mu ne ma non mais yéen yéen a ngi défendre ñoo xam ne xamuñ leen 93 yàgg na de ma ne ko mais oui mais ñun dañoo réunion bureau ñu ne dañ leen di porter plainte ma d'accord man je ne mu ne ma waxuma sax loolu asko seen ci boppam ngay bàyyi ma ne ko damaa joxe sama kàddu doolu moom duma ci dellu ginnaaw mun ne ma léegi dama lay wax dara mu leer ngan man ma ne ko ah mu ne ma boo defut li ma la wax sa contrat dina jeex mois de juillet du ma ko renouveler ma ne ko kon de doo ko renouveler mu bañ ko renouveler combien de sénégal sont son à faire ce ce ce ce ce choix là nga jógee directeur nekk chômeur pour lan pour garder pour respecter sa sa sa sa kàddu. bëri bëri na.